daa ngeen jaamu mbokki internet yi ñuy safoo di seetaan suñu Actu fii ñu àddu wax si xibaaru tiis bi nga xam ni moo daal si kaw féministe bii di Gabrielle Kane moom Gabrielle kan nekk nit koo xam ni ñu bëgg xam nañ ko fii ni si Sénégal si xeexal ñi nga xam ni ñoo ci jigéen ñi ba tey ñu ràññee ko bu baax baax si coow yi nga xam ni moo dox si diggante Ousmane Sonko ki nga xam ni moo di Adji Sarr moom Gabrielle Kane nag la ñu annoncé ne kat dafa def ab benn choc maanaam ab accident boo xam ni ba mu koy def mi ngi ko fekk si biir otoom boobee accident nag nekk koo xam ni xaw na koo sonal ba tax na sax ñu daal di gaawantu daal di ko yóbbu ca hôpital ñu mën ko taxawu gaaw boobee accident nag ni mu amee ak fi mu amee kenn xamagu ko waaye continuer leen di abonné bépp information bu si mujjee am di ngeen ko am fii nii si sunu Actu TV